Euh, may waxtaan ak yéen rek ci kaawu président Ousmane Sonko bi nga xamante ni tey dégg ngeen ay jabaram génn du ñu wax état de santé wu président Ousmane Sonko donc ngeen xam ko ngeen dañ koo xam président Ousmane Sonko sonn na voilà parce que Macky Sall dégg ngeen bu baax a baax li leen jabaru président Ousmane Sonko wax fuñ ko teg jëlul benn soin mooy fajuñu ko dañ ko teg foofu noonu kenn toppatoowu ko léegi na devant tous les sénégalais Fi amul dem di ñaan Macky Sall Marème Faye Sall euh, sarax leen ñu ngeen son ko. xam nga moy lan un dëkk boo fa nekkee ñu leen di tek comme ay mala bañ leen tek comme ay nit ngeen tek seen bop nit Moy ngeen dem fekk Macky Sall fa mu nekk Marème Faye dem bulli dem gënné xalé 1200 euh 1200 prisonniers c'est énorme Tay Sénégal deuil national la waro nekk ñun ñoo nekk dëkk bo xamantene rey fa ay nit len sand ci bir ndokh mi ngeen continuer def sen soxlo comme si rien n'était rien rien rien parce que deuk bi ñu ci gëna bari bëri cerveau lappato la ñu am lapoto boko boo ko ñoppatee danaan kalan la moo tax tubaab yi bañ tolloo esclavage dañ doon jël lappato yi di len door liif yu yu metti metti metti metti metti parce que buñu dooré lif bi bi bu paré day encore di jaamuwaat ki koy dóor lii jamono esclave boobu noonu fan leen Macky Sall nar a dee lool boo leen ko nangoo ci Sonko mooy nangu ngeen ko seen bopp boo nangoo ci ñi nga xam te dañ nekk ci prison yi mooy nangu ngeen ko seen bopp affaire bi nekkul ngay dem di toog ci ay wër ay li kilifa diine naan dem leen def intervention affaire bi nekkul dem leen def intervention de parce que lii boo leen ko nangoo ci Sonko Moussa Sow maa leen nuyu bu baax a baax soxna mi saa ngi maa leen nuyu boo leen ko nangoo ci sunku moy nangou ngeen ko sen bop lepp li ngeen di accepter ci sunku moy nangou ngeen ko sen bop ndax sunku nit la comme yéen Macky Sall sax ni muy traité sunku ni na xamna ni mom dafa melni ni bu ci tolo tamit nonu lañ ko wara a traité parce mom moy xal yoonu maltraitance nit da ngay bëgg sa bop même bu la kenn bëggulé man de bu kenn bëggulé bëgg na sa bop bu ma genn xeexalulee sama ak sama yelleef dama koy xeexal sama bopp sama bopp ma gënal bañ naa la tey da dem ba tubaab yi dañ leen di jéppi ngeen foog ne xuwaan bi du leen jéppi xuwaan da leen jéppi parce que dëkk bi amul avocat nee naa leen Sonko mois de mars population bi ko génnee du ay avocat mois de juin population bi mooy ngeen génn ci biti Macky dellu ginnaaw ngeen toog seen kër mu def continuer def ko neex ak Marième Faye Sall ba fii ci nga dëkk dama ne premièrement ko xamante mënul yar ay domam ñetti dom ñetti bant la ko may ah té mënul leen yar koku naka la mëna yaré 17 millions de sénégalais Mollah Morgun won na leen domu Macky Sall muy dox yamba kon mom domam yi la mënu leen yar Mollah Morgun nee na yor na numéro vidéo bo xamante domu doomu um, Macky Sall bu jigéen bi day sex tape dem leen déglu Mollah nee yor na léegi ku munul yar ñetti doom yéen ngeen jël seen bakken bi dénk ko koo xam te ne mënul toppatoo ñetti doom balaa maa dee ñu naan man Marème Faye mooy sama yaay man kuy doon sama yaay sax may taamu da ngay mos a yar sax ma gis ne ka nga yar normal na mais koo xam ni nga yar sax mënoo leen normal milliards yi ngeen am yëpp yëpp yëpp mënoo leen ci créer doom bu normal c'est-à-dire doom bu am éducation déedéet poubelle ngeen poubelle ngeen di jur poubelle ngeen poubelle ngeen di jur Les nag boo leen c'est leur vie privée c'est pas leur vie privée parce que leur vie privée est devenue publique parce que ma ngeen présents kayitu ba ngeen portable président Ousmane Sonko ak ngeen jël internet aucun respect civilisé ça defoo ko Vous gëna civilisation légui na kuy gemmeñam ak dem da ngeen di di nga parce que fo len demé ba nango jaamu tukkatu yamba bi doomu Macky Sall war ngeen mën a jaamu sax maam mhm. yeen nak indi wulen mieux di indi wulen mieux di dama xol doom yëpp y pas un qui rattrape l'autre moy am ay milliards ba paré sa doom yi mënuñu ci am diplôme mënuñu ci am liggéey mënuñu ci créer dara lu du sacc légui ku ngeen jël dénk ko sen bakken bi man sama doom dama ko denk bakken sama bakken doom dama ko denk maksal. man nee naa ki may jël référence da ngay yar ma gis ba paré mais ko xam te li yar yëpp yëpp yëpp amu kenn ku normal mu ñu yar ñetti doom ñetti doom ñu len yar ñun am nañu suñu mam yo xam te ne am nañu 15 doom dañ len yar amu kenn ku ci yamba mom ñetti ñetti bant la ci am nekkuñu médecin nekkuñu technicien ak alal bi ñam am yëpp nekkuñu dara Mamadou Diongane ma ñu tekki wuñu dara ci dekk bi ba paré ni ñu tekki dañ len di yàq buñu tekki dañ naaw ma ah, dem Marème Faye c'est pas parce que t'arrives pas à mettre des gens normaux des enfants normaux ce n'est pas parce que tu as des enfants mal élevés yow le la teguñu parce que ñun ba nga doon toog di lëmbal suñu yaay dañ toog di yar boo amee leen population pour leen ngeen comportement Nous nag ñi ngeen ñi gens ñi nga dañ leen teg ci kanam fi nga nit ngay sa référence kooku duma ko dénk sama ba euh, sama bakken bii duma ko jël référence. li nga dëkk boo gisee mu bëri feeñaa parce que te ngeen jël référence laal ba bool ba duus ba léegi sax def nañ ko ba teg nañ ko fële yu ndaw yi descendant yi ñoom nee nañu ñoom dañu teg fële lal ba bool ba duus ba toog muy dox léegi fen muy dox moo xew fen muy dox ñoom ñëpp léegi dañuy dem di fen muy dox fen muy dox fen muy dox mais ça ne m'étonne fen muy dox jàpp jàll. fenal Sonko muy dox yàlla san ne m'étonne pas du tout parce que ña ngi teg référence la ji nga dëkk ka nga teg ca kaw bu taxawee ne dootuma njuut njaaj muy fen muy dox président bi di fen muy dox première daan di fen muy dox ma euh, marabuyon bi di fen muy dox moo tax léegi fen muy dox nekk métier ci ci dëkk bi nekkatul toog muy dox de fen muy dox moo xew moo tax instant bi kenn talatul kenn fen muy dox léegi na fen muy dox boobu sax arrangé ndax léegi koo fay koo fay ne ko demal toppal ma Amadou Sall xoolal ma ko ban gel partousal mu ñëw indi la partous yi teg la fa léegi loolu dafa yomb de moo tax ñu nga Macky Sall ma lay wax nee nga doo def troisième mandat alhamdulilah libéral détenu politique ndax lii di ñëw nii di ko bëgg fay muta la xam foo ko leen fi toll woon dañuy tegal seen doom yi ñuy tox yàmbaa ci internet bi moo ëpp samay bopp léegi nee ngeen Macky dafa yaru kon fan la jaar ba doomam yi di dox yamba yàmba hmm. léegi nag ñëwaat nak ci dox yamba bi parce que yamba bi dafa am importance xam nga yow neena nañ jaaykatu yàmba moom ci dox ko lay mujjé mais léegi yéenay duggal léegi li ngeen dugal yàqatu suñu doom de sen doom la yaq <laughs> ndax ñun ñu ngi yar <laughs> nee nañ kuy xalam du ci jaayu mais instant bi li ngeen dugal yàqatul suñu dom de ñun baadoole yi yàqul suñu dom, yeen seen dom lay yàq yeen yeen yeen yeen seen dom lay yàq ndax yeen xalaatu len dara seen cerveau yi juutu juutu juutu cerveau yu ñak fayda cerveau yu yolom ay ay cerveau yolom geño rek ngeen am wala nday yolom geño dom yolom geño li ngeen ala guerre comme la guerre mo la neena yorna hmm comme en attendant ñu gis taat yi Ousmane Tunkara

duñu duñu sos dañuy yokk man fii laa toog ma dégg ñu ne xale bu jigéen bi xale bu góor bu bañ a tëddaf moom ci biir palais bi day wax baay bi mu dàq ma ne ah naa jël noppi xëy na loolu ay rumeur rek la mais bi mu laa waxee tey laa ne ah lañ ma doon wax nag dëgg la xale ba nag moom yemul foofu mooy am na ñu bari ñu ñu dàq seen baay ci pale bi. xale bu jigéen bi la kaay laal ma wala moo wax sama papa mu dàq la looloo am ci bale bi <laughs> mooy am ngeen am ngeen ay gendarme yoo xamante ne ay policiers yoo xamante ne bu ñu laalee ci laalulee ci xale bi ah dañ leen di dàq te loolu bokkuloon bi ñuy signé contrat bi loolu bokkuloon ci so contrat bi de mais xale bi ah dafa yokk loolu ci contrat bi mooy kaay laal ma wala sama bàyyi dàq ma léegi nag loolu yëpp am na ci pale bi ñun moo laa ah dama def complément rek complément rek li moo laa wax pour dëggal li moo laa wax bu ma molaa nee vidéo côté boobu mom dina ka nangul molaa ne am na vidéo parce que man kama informé nek ci biir pale ba mune ma ñun ñëpp on est obligé ñu soos si xale bi parce que buñu ñu lé ci xalé bi xalé bi fu ñu boolee bàyyam bàyyam daax bi <laughs> mu ne ah, seen problème métti na <laughs> moo tax ñàkk bon <laughs> <laughs> non la pauvreté c'est pas bon du tout xamal nga loolu bi wax non dama ne non c'est pas possible non nak lañu li lii mën a mën naka la ñu mën mais mo la ñëw na ko confirmé nee bi day sex may ne xale góor yi nek ci dëkk bi te amoo leen par chance boo leen tasee doomu kuse parce que doomu kuse kuse la boo leen ko wé ben jour rek boo leen nangoo kuse tous les jours am ngeen place sa palais ba lolo fa am <laughs>

ma def rapprochement affaire yi ne xale yu yi nek ci palais bi ne mané ma bi ah bu ñu tuddulee dañ leen di dàq ils sont obligés ñu tudd xale bi ma lool loolu dafa bokkoon ci contrat bi bañ leen di embaucher est ce que loolu bokkoon na ci ñu ñu déedéet mais xam nga amuñu choix parce que xale bi bu demee fofu fenoon ñu dañuy dàq Sénégal moy tombe des animaux yalla na président Ousmane Sonko jël dëkk bi ba li remettre les pendules à l'heure parce que instant bi le pays est malade ngeen baal ma nag de ngeen partager live bi hein ba mu yegg nak le maximum parce que xam naa ne li mo la wax ci TikTok ba amna ñu bari bëri guñu ko li comme mam mën na jottali man damaa nittali rek nak de buñu ñu ne maama sos mam la mo la wax laa ci yokk benn complément de dossier bu ndaw léegi gi yora peut-être des témoignages xali góor yi nga xam te ils sont obligés ñu tëdd doomu guse parce que bu ñu tëddulee doomu guse dañ leen di daak dañ leen dak dañ leen di dàkk xëy peut-être ñoñu dinañ am fit ñu def témoignage yàlla na jàmm yàgg yalla na président Ousmane Sonko fa nek may wax sénégalais le maximum bo leen mënee génn parce que yi bo boo leen génnulee plus ngén di xaar plus président Ousmane Sonko fa nek du fa génn nee naa leen boo leen jëlee association yi tuuru mbootaay yi eh, eh, fépp foo xamante ne dafa am euh, rassemblement nit ci souf mun ngeen naa dem génne ji prisonniers vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes même 1000 personnes bo leen leen dem ngeen régler problème prisonnier plus ngeen di xaar plus on met en danger la vie de toutes ces personnes là amna une façon désobéissance mbalit bi nek sen buntu keur yi yëpp jël len ko sandi ko sen buntu këru maire yi pour woné né ne yéen li nek Sénégal Sénégal mbalit la dina tax ba peut-être popul ñu am ñu len déglu ngeen génn tous les jours 20 heures def un concert de casserole sen buntu keur yi ko Macky néna dootul joxeti autorisation manifester au moins yéen a ngi est présents président Ousmane Sonko même ñu ñu télé ko génn ngi yuuxu pour nous dégg il faut que vous vous dépêchiez le temps ne vous attend pas amna ñu Vous amna dund xamuñ tay président Ousmane Sonko côté bi ko dégg tout le a entendu Vous ñi dafa sensible non Anna est jeune la vérité sort toujours de la bouche des enfants man li ana wax la gëna diglu hein la gëna may xel que li aawo bi wax parce que ji nga ñun dañu mën nëpp nëppal bu ki gëné aduna ñu tok di joy prenez en considération li ana wax c'est pas question de sensible ou pas li ana wax yaa xam ne tout temps aawo yi